bienvenue dans votre entreprise. Troisième, menuiserie métallique Mansour. Vous voulez des portes, que ce soit en fer, aluminium ou encore en inox, veuillez vous rapprocher à la menuiserie métallique Mansour et nous vous proposerons différents designs. Il y a un pour la mer. Vous pouvez également commander votre design de choix. Menuiserie métallique Mansour vous satisfera. Prêtez-nous une oreille attentive. Nous lucide le Vous voulez des rampantes d'escalier des garde-fous, chambres à coucher, mini-salon, wala et plateau télévision notre entreprise troisième fabrique tout ceci wax nañu leen ko ca ba muy teel de boulet toujours copier mais jamais égalé Wow, maa ko pire menuiserie métallique Mansour Ben la nous sommes installés à Thiaroye Tally sous le pont en face de pour plus d'informations veuillez nous contacter au 77 404 83 94 ou 77 975 75 95. Menuiserie métallique Mansour, la qualité, notre force. bon dans def euh, générale pour ñëwaat ci dans un premier temps sur projet projets pour porter bi la euh, commune waaw projet yi nga xam ne ni le 26 lañ bëgg a def euh, lancement projet yi fii ci poste courant waaw liggéey boo xamante ni la ASB ko sumb ànd ci ak euh, waa mairie bi et tout donc le 26 lañ bëgg a def euh, lancement yi waaw di profiter aussi si occasion bi di ñëw ci dernier découpage administratif yu kii président jël ci commune bi concernant morcellement sunu commune nga xam ne dañ ci dindi ay pàcc surtout bi gën a am solo muy marché bu bees yóbbu ko géejawaay di wax ni ñun waa guy gi ñu ngi koy ñaawlu bu baax waa di wax ni suñu commune bu ñu sañoon dañ koy bàyyi tout entier euh, mesure yu mel noon bu ñu koy jël ñu jiital ci intérêt population yi et non euh, des mesures politiciennes yoo xam ni c'est juste à des fins politiciens parce que ku xam marché bees xam ni ci jiite caare kaw la bokk ci gonay tey la bokk gonay tey nekk euh, presque bok ci guy gi donc bu ñu xoolee mesure boobu ñun ñi fi juddoo xam nañ ni lii c'est juste une mesure politicienne donc ñu ngi ñaan monsieur le président de la république mu dellu si ginnaaw delloo jiite caare kaw commune am parce que au-delà de toutes les divergences politiques intérêt aux population yi moo war a

catégorie senior bi xaar ba déwén le temps ñuy réaliser projet bobu pour que bu ko défé bu déwénee ñu ñu mëna mën ci compétition bi. projet est-ce que mën nga si ñëwaat. projet bi euh, en quelque sorte dafa am point business am multiservice ak euh, resto restaurant fast food ak une place publique donc comme niñ ñu ko wanee sànq si japo yi nit ñi gis ko loolu lañ fa bëgg réaliser en partenariat avec la mairie. waaw moo tax ñu dellusiwaat parce que c'est partagé par tout le monde assemblée générale la ko jëloon tey assemblée générale moo dellusiwaat féetaliwaat décision boobu quoi donc C'est une décision boo xamante ni à l'unanimité gis nous au sortir de l'Assemblée. L'Assemblée a bi adopté position boobu xam nga euh, muy position nag xaw metti parce que ku xam guy football la ko xamee xam suñu passion xam suñu bëgg football xam ni bi ñu sasoo ba léegi manqué une saison au-delà ben wala ñaar donc ku xam-xam suñu fugg xam nous passion ni football xam ni décision la sommes xam yombul d'abord nous nga ñun ñi ko mais enjeu yi parce que projet bu aussi c'est innovant et comme nous, nous wax nous du football donc dañoo bëgg nekk ASC troisième génération nekk ASC de développement non seulement dañuy football muy suñu passion mais dañ ci bëgg boole dekkil culture bi dañ ci bëgg boole également insertion jeunes yi tout ce qui est formation euh, tout ce qui est entrepreneuriat aussi wan jeunes yi nii warul nekk waruñu xeeb suñu bopp daal donc war nañu mën a jëlal suñu bopp en main suñu développement suñu développement wu gox donc loolu moo waral ñu jël mesure yooyu. ma dernier mot mooy remercier euh, waa guy gi yëpp parce que xam naa ni tey jël nañ décision bi mais xam naa ni neexu leen daal parce que xam ku leen xam-xam seen passion mais euh, vraiment tey kontaan naa si ñoom trop parce que aussi wane nañ seen maturité wane nañ aussi seen seen seen seen niveau euh, de développement fi mu toll wane nañ aussi seen seen koñ ni mu leen yittalee mais aussi di remercier sage yi nga xamante ni ñoo ñuy gunge bis bu nekk ñoom it seen apport vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax.